def googu la njombe moo tax ñu daal di siy ubbi ab enquête yéene kaay gi di libération mbir moomee wax ci élection locale yi nga xam ne moom la ñu dëg ma la ak gars yi gi nee na l'heure gi de Le Quotidien xibaar naan ñu deal bi nga xam ne Macky Sall deal na ko ak Idrissa Seck naqari na lool ñi nga xam ne ñoo gi xëy dañu xibaar naan ñu ci Ndakaaru équation boo xam ne juróom-ñaar ci inconnu moo dal xam ne ñooy waa coalition xëy fekk fa son war di ni nee na Khalifa Sall daf maa war a déglu man ak Barthélémy Dias yéen gi di réew mi ko di jen xëy dañu xibaar naan ñu élection locale yi ak seegul waaye nag jamono ci coow li ma ndax consensus amul ci coalition Yewwi Askan Wi ci mairie bu Ndakaaru wa am na lu toll si juróom benn ñoo xam ne daan nañuy déposé maanaam seen i candidature yéen a kaay gi xëy dañu xibaar naan ñu Barthélémy Dias moom dafa teel a déposé li nga xam ne mooy candidature ma ci commission bi nga xam ne mooy yor lu jëm ci wàllum investiture yi ci département bu Dakar ndax ñooñee ñoo koy lijjanti daal di koy jël nag yóbbu ko ci commission nationale d'investiture bu yeewi askan wi yéen a kaay gi nee na ki nga xam ne nag mooy soo am war di ne maanaam gisuñu turam benn yoon ci nag liste bi nga xam ne commission bi yor wàllum investiture départementale bu Ndakaar maanaam turam ne sa la nga xamante ni moo ko waral nag soo am war di ni dafa yeex a déposé ndax nag délai bi àjjuma la moom samedi la déposé yéen a kaay gi di Sud Quotidien nee na en tout cas askan wi ñoom daal ñoo ngi sàkku PV yooyu nag ñu daal di koy annulé yéen a kaay gi di Les Échos nee na lii moo am ci biir coalition Yewwi Askan Wi Khalifa Sall ak ki nga xamante ni mooy Cheikh Gueye ñoom nag dañoo bëgg nag nii la la maanaam liggéey bi nga xam ne commission d'investiture départementale bu Ndakaar daan nañu koy def ci biir Yewwi Askan Wi loolee nag ña xam ne nekk ci commission départementale bi ñoom nag dañoo lànk ba tëdd seen naaj woo ndax ñoom nee nañu duñu liggéey daal ba yegg fii bëkkoo nii la la yéen a kaay gii di laas xëy dañu xibaar naan ñu nag coalition Yewwi moom Wardini moom nag dafa am xel mu ñaaw ne kaay yi maanaam dañu ko complot yéen a kaay gi di réew mi quotidien nee na en tout coow lii bëri na lool waaye nag ki nga xam ne mooy Khalifa Sall ak Karim ñoom ba léegi mënuñoo bokk ci li nga xam ne mooy élection yi waaye nag ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko ka bi ñu koy jàpp ak coow li nga xam ne moo fi amoon loole nag waroon naa mën a yee nag ñi nga xam ne ñoo ŋànk réew mi daal ngir nag ñu bañ a jëfandikoo justice bi maanaam di ko xeexee maanaam xeex bi ci wàllum politique ci terrain bi la Assane Samb mooy wax waaye def ay manœuvre ba écarter li nga xam ne mooy ay candidat loolee nag tànk ma ngi am ci réew mi jàmm doo am ci réew mi Aliou Sall moom nag daat nay wax ne daal Lat Diop mooy candidat am ci élection locale yi nga xam ne moom la ñu dëg ma la moom rakk njiitu réew mi ci biir journal bi nee na ñi nga xam ne ñoo bokk ci benn bokk yaakaar nekk fii ci géej waaye di fëgg seen dënn duñu dara tekki wuñu lenn ci wàllum politique maanaam ay xuusma ñàpp lañu yéen a kaay gi di direct news nee na nag Lat Diop maanaam mooy candidat Macky Sall journal bi de Le Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu sa diwaanu Ziguinchor duel Ousmane Sonko Abdoulaye Baldé mënatul ñàkk Ndour ka ca département ba las yéen kay ñu koy fekk fa waa PUR ñoom nag dàq ñu benn yoon ci élection présidentielle ñu samp Serigne Moustapha Sy ngir mu nekk seen candidat yéen kay gi Vox Populi xëy dañu xibaar naan ñu coalition gëm sa bopp bu Bougane Gueye Dany ah ba ma nga am doole ndax ki nga xam ne mooy Ahmed Fall Braya daan nay fekk si Bougane Gueye mooy nekk sax candidat gëm sa bopp sa diwaanu Saint-Louis yéen kay gi la Tribune nee yéen kaay gi di Vox Populi xëy dañu xibaar naan ñu ñi nga xam ne ñooy tonni mbalit yi ñi moom seeni oto état bu di leen a amee lu toll si juróom-ñaar ci ay milliards ñoom nag tey ji ci altina ji dañuy dakkal li nga xam ne mooy liggéey yub tonn mbalit mi ndax dañoo bëgg état bu Sénégal daal leen di fay seen xaalis yéen kaay gi di Stades nee na Premier League Liverpool xaw naa rey Manchester United juróomi bal ci dara la ko dóor ci biir stade bi di Old Trafford yéen kaay gi ne na Real Madrid daan nay def gi ne na Bayern moom ba léegi daal du ñi nga xam ne ñooy